bu ñu nuyoo mbokk yëpp dañuy sant préfet ci ko yóbbante cant googu ci kilifaam di gouverneur ak mboolem ñu mu seqal bi cant itam ñu ngi koy def maire bi ñoom ci seen taxawaay bu rafet di leen xamal ne li nga xam ne moom lañ diggante woon ca CRD ba euh, lu ca liñ ca war a def lépp def nañu ko ndax tey bi ñu xoolee évaluation bi amu ci benn activité boo xamante ne bii taxaw na ba fi ñuy waxee nii kon jàpp nañu ne bala ñu àgg ci alxames ji bu ci yàlla àndi lépp dina matale benn njàq rek la am njàqare bi mu ngi aju ci lekk yi nga xamante ne bi dafa yàqu te ay nit yu bëggee di ko jël di ko dugal ci marché bi di ko jaayaat loolu ñuy wax ñi nga xam ne ñooy jënd ak fu ñu mën di nekk ci dëkk bi nañuy def nank ci li ñu jël nañ ci tey bala ngaa jënd dara na ko jël nga xool dat bi te même nañu bàyyi xel sax ne dat yi léegi dañ koy xoos booy jënd bu amul dat bu ko jënd te boo gisee loo xam ne yàqu na nit nit di ko jaay na nga ko wax service commerce ñu ñëw nangu loola yàq nangu loola donc génn ko ci marché bi ndax loolu ko dafa mbir mu doy waar moo xamante ne bii euh, kaaraange ak wér-gu-yaramu nit ñi lu bare bare bari da ci da ci aju kon nit ñi nañ ci dañ ci tey nee nañu boisson yu ci bare bari dafa yàqu nee nañ bari na ci euh, meew sunguf meew bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon daal ñu ngi ñaan nit ñi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di wax itam sunu mbokk yi nga xamante ne ñooy jaay yu mel noonu ne leen loolu ñu ngi lor nit ñi ñu ngi lor dëkk bi waaye ñu ngi lor seen bopp na àq la te loolu foog naa àq na ab julli waru koo jëmee ci biir weeru koor rawatin dëkk bu mel ne Touba ndax yu mel noonu waxtu tubaa lañ koy gën a dégg kon ñoom ñi ngi yàq darab Touba te képp ku yàq der Touba nag dimbali woo ki nga xam ne moo di sëñ Muntaxa dimbali njaboot sëñ Touba gi te sëñ te sëñ Muntaxa dañu barki rek nee na képp ku nekk dëkk bi de ci ndigalu Serigne Touba nga war nekk te ku fi ku fi jaay nag su dul noonu nekkoo ci ndigalu Serigne Touba kon sëñ boobu génn na la ci boppam kon loolu nañu dellu si waat suñu xel te xool li nga xam ne noonu la ñu doxale te xam ne ñi ñuy lor seeni njaboot lañu ndax man ngay jaay lu bon sax nit den la yow togg ko sa doom jóge sa kër dem lekk ca loolu ca kon loolu te loolu mayewul dara kon daal ñu ngi koy ñaan nit ñi ñi ko doon def ñu bàyyi ko bu fekkente xamuñ ko woon ñoom itam bu ñuy jënd ñu bàyyi ci xel képp ku lay jaay lu yomb nga xool kii lii lan moo li yomb te xañ ni wut jar lii kon ñi ngi nit ñi jënd itam ñoom itam nañu nañu tey ci lu ñu jënd di ko xool bu baax ñi ngi sant ñëpp di gërëm